ñu ngi ko fàttee fii ci yëmbëg Cheikh Koli amoon ñaar fukki at vingt ans ñu ngi ko fàttee ca Bignona Famara Goudiaby moom it amoon ñaar fukki fan ñaar fukki at vingt ñu faat ko Bignona Pape amoon moom ñaar fukki ñaar fukki at vingt ans ñu faat ko fii ci Kër Massar Sadio Camara am fukki at ak juróom-ñett 18 ans ñoo ngi ko faatee Diawbe Mansour Thiam moom it am ñaar fukki ñaar ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee fii ci Ndakaaru Alassane Bari amoon fukki at ak juróom-ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Centenaire ci Ndakaaru amoon fanweeri at ak juróom 35 ans ñu ngi ko faatee ci Ndofane. Bourama Sané amoon fukki at ak ñaar 12 ans ak Modou Ndiaye nga xam ne moom la ñu mujjee xibaare ñu fàtte ko tey fii ci Parcelles Assainies ci anam yoo xam ne ñaaw na fu ñaawaay yem kon ñu ngi leen di ñaaral boroom bi xiri leen xaare leen àjjana may ñaan nag ñi fi nekk ñëpp journaliste participant convention bi benn ñax mu naan dal leen si déggu Kawsara fukki convention bi benn bu nekk ànd ak bis maanaam ak ñu bokk moom ñoom Guinée ñu def seen prière waaw man du conseil mondial des religions pour la paix دعاء العباد اللهم ملطف بالحق الذي لهذا درجات تبلغنا بها في الحياة ببعض الأموال آمين آمين آمين waxtaan bi gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais yi seetaan yëpp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yu jiitu mbir na ma man ni ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca bañ ko waree def te ñu koy jeebaane wala ñu koy wax ci kaw dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko lañ ko waral lañ ko waralul am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom mu war leen kon ñu leen di gërëm ci taxawaay bi di gërëm ki aada bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñëpp ñii fi nekk ñëpp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñëpp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci du ma ci daju man mooy Sénégal yitte gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am am certitude ni dañu war taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal taxawal ñu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être 10 pour cent yi dinañ génn wala 15 pour cent yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax Sénégal yi génn déedéet li tax lii am mooy yéeg bu kenn ku ne am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moment yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn rek defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi di gërëm ñoom ñëpp. ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag lu jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujjee waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñi ma mën a lim ak ñi ma mën a limul defe naa Adja Yacine ngi nii toog sama wet eh, sama avocat ay dëmboo ji ni nële ñoom may mën a buusu ak keneen ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom Aysata Saabara ñoom maam Dia bu ma limul rek bu ci mel ñu delloo leen dugal leen ci journée bi maam Dia. bu ma limul rek ci mer ñu delloo leen dugal leen ci journée bi dañoo sacrifice dootul jëriñ dara ñi seen bakkan rot ñi si gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy dellu euh, delloo jukkal ni ma ko defee ci ñii nga xam ne seen bakkan ron na ci sa naa ci dellusi ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri te am na ci ñoo xam ne gaañu gaañu yu xaw a garaaw la di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu di delloo njukkal ndax mbir mi ñoom du ñun li ñu def nag ci jagleel ngërëm bu yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon gàcce na ngeen xam ni réew ñun acteur politique yi lañu war seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytul dina ëpp liñ ci mun a jëlee te loolu naa ci dellu si bu si kanam di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngalawaay bu mu dañee ci Sénégal bu mu dañee ci parce que li ñuy wax ne grande démocratie boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan wi dafay taxaw jonn di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ko nangu ñu dellu si kon ñun ñëpp nañu am di masawit ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon ci mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te it suñu xeex jubluwuñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu du woon cëslaay bi parce que ku bugg a yor réew ak ku bugg a defar réew doo toj al allu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy massaw bu baax nit ñi mu dal di massaw njabootu ñi ci faatu di leen leen jàll te bu soobee yàlla dinañ góorgóorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñëpp dox ñëw jaale si leen di masaw njabootu ñi gaañu lañ ci mënit ci taxawut nañ ko def di masaw njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuranke wala sa njaboot bu tumuranke waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay diis yu daal ci senegal lan boo ko waral bi ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar ni ñoom dañu war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw loolu lañu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox na administration jox la justice jox la armée jox na lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la ñu bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la ñu bëgg mooy nit ñi faju lañu ñu bëgg mooy tale yu baax Macky Sall wëlbati loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw euh, citoyen muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku nekk d'accord maag Macky Sall rek teg na doole googu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteur yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick Sall ak Bassirou Guèye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen ni def loo ay ancien directeur du domaine ay Euh, avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñi musiba Sénégal yépp ci jamono yi ñu toll tembe ci ñooñu la est-ce que na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbele est waroon nañ ko mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo buur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mën a jot jot jot ci opposant waaye ñoom saa ñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu koo tudd te ñi ngi romb Sénégalais di leen narge loolu nag dañu mënut a nangooti loolu tax nit ñi jóg ni lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky saal li ko bewloo bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñii naan analyse politique lañu ñii naan lii lañu ñu naan c'est un génie politique génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mën ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jénkee réew nga defar réew mi waaye soxla ñu ay génie politique génie politique mooy lañu la dénk nga liggéey ko ba Sénégal yi soo ne sama sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyi wuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek dal ci kaw bi neuf ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tur nangooti te te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mun a am ndax moom biñ ko falee dafa dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des sénégalais li mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow pour fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi. nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yëpp ay terroriste lañu boobu yëpp dafa am ay intérêt yu ne seen gannaaw di leen financé ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financé taxaw saaga sa peuple ñëpp ñëpp wet yow dong sa pale tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak pale cundum peuple bi yëpp nekk fii suñu woon militaire ak armée bu def suñu diggante tey kii kenn kenn du kenn du kenn ay ay ay bagages am nañ koy fa loolu foog ngeen mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax nañ su ngeen dégloo nit à huit heures à neuf heures yéen a koy jox seen seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu xoosu waxuma laa bakkan di ci wax parce que bu boobaa du ma yem ci liñ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yëpp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam boroom responsabilité Macky Sall la ak comploteur ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la République boo xam ne war naa gouverner ci ci li tubaab bi wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la République te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doo a am Sénégal tey da laay doog a dégg Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd ngëm-ngëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn war koo di ci ñëpp nag ba ci mboolem média yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññi nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taaw réew nañu delloosi suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog am te dafa war a dàkk Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn yi sax ñëwetuñ dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax wax ju sedd est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngat ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam setul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ki nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur man dama leen mujj ndaw GIGN bés bu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngalawaay bu ñu jaaxaane suñuy institution des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn mësuma sax bëmëx kenn mësuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yëpp ñeeñu ko ngelawaay Macky Sall bul yàq suñu réew gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote une pour le Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ciy bàyyi xel. te gëm naa ni ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen di wax tamit nii Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew nii ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey jii amu ko amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidat yi maa yor position boobu ba léegi mosoleen ma dégg ma ne ko président Macky Sall Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu woon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii su suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan bi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak dal daf koy baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jot naa man démissionné na askan wi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce ñaareel bi yenn boroom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mën moom ci ay gouvernement léegi nag mu des ci ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu ko arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Ndiaye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du texe lii ma gis nii ci ndaw ñi kenn mënatu ko arrêté la révolution est en marche te gën gën see gudd 2024 ñu mottali ko la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réew Afrique yu bari def nañ mooy dañuy conduire seen révolution ba dégg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbiru te ñaari armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen i nit préparer ren pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadré parce que stratégie dafa baax ci lu ne lu lépp nag la ñuy wax ci terrain waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadré ba yegg fi ñu bëgg a waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan liñ koy encadré mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo na a exiger imposer rapport de force rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam layam yi lu ñu exiger Macky bu ci njëkk mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul mënul tax ñu ñu ñu ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence ak Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci nu mu gën a rafete ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiire ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fii leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la looloo tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñi wax nag ni dép ñi ngi déposer une plainte auprès de la cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguur Macky Sall na xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ay police ñu koy espionner suba ngoon Macky moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina takk bis ci tey ñaareel mooy. ñi nga xam ne ay ministre yu mu jël moom ay sambabo yu ñu jël jox leen xaalis ñor ay jaas yi ak ay fital di di di fit exigence nañ leen a identifier jàpp leen livrer leen à la justice ñu leen ñoom ak ñi leen yónni nag ñoom ak seen commanditaire juróomeel bi mooy Macky na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections ni mu gën a leeree ay wuruj fichier électoral jeex na ci senegal yor say carte d'identité ne du ko jox ndaw ñi parce que ànduñu ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mën a demee ci élection xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection local sénégal yi tànn seeni i maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu dina organiser élection législative en mille 2022 sénégal yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci li mu gën a rafetee lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigé suñu Sénégal amatul dirigé Sénégal ne démissionné naa ñu def élection ko may benn rapport mu toog naan maay buum maay buum maay seet kañ laa kañ laa koy def ak na ma koy defee kooku euh, juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xaj seen droit civique benn ci xalifa Ababacar Sall bi ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaaru yoon nga ne damay jaay doole kooku mu nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw soo ci intérêt lay dem dootul fi nangu élection lu dul ku fi war a nekk candidat nga war a nekk Sénégal yi seet bu leen doy tànn waaye même Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na juróom-ñeenteel bi wala juróom-ñeenteel bi mooy moom Macky na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul moo bon vouloir wala nii wii nii non fii non rek moo fi am na yépp ne troisième sax dootuma ko tudd waxuma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii wii nii non ak yu demee jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën dafa dem nekki candidat lii lépp nag am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo ak bi nga xam ne constitution moo ko may ni man du ma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey won nañ ko ni ci par force nañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée. France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen a keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi un million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa. exiger que lii moo wax neuf mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokk Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew mi su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul dootul doon loolu jeex na ci réew mi may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñi ñëpp nag di acteur politique askan wi mérité na des acteurs politiques qui soit à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp war ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépensé si ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog nit ci milliard ci politique nga amee milliard ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk Sénégal mën nañu am ay projet yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute waaye du ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci Sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñu gën a gore man de man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne le mérite pas gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nañu jël engagement solennel ni bis ni ki tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew yomb naa defar ne te peuple bi amatul droit un euh, troisième ou un quatrième départ bii bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp. kon loolu ci lu jëm ci ñun la nga la waay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na trop. waaye dafa fekk li di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk laay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ naa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ne loolu amut ndax gannaaw ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn seet Cees ak feneen ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na dañu xeex dëgg kon li ma leen ñaan mooy ci six yii juróom benn weer yii li samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mini génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la te boo seetee li xew Sénégal tey li nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt Euh, di wax tamit ni li jëm ci mbir mi nee nañu contrôle judiciaire man nag acteur politique la sama indépendance politique kenn duma ko xañ loolu moom mayu ma ko kenn ñaareel bi ñun musuñoo daw justice combat de principe mooy li suñuy àq ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te dinañ ko continuer xeex ndax suñuy avocat ñu ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci nu ma gën a gaawee ci nu ma gën a gaawee ñu dem ci procès ba nu mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jëm fuñ ko foogewul woon may remercier it euh, euh, ci présence su daam yi parce que tudd ma góor ñi waaye bés bi bésu jigéen ñi la madame la ministre Aminata Lo Dieng